sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum mbokki murid yi mbokki jullit yi ñoo ngi leen nuyu bu baax te di leen siyaare te jiital si nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ñaan saa borom mu yàggal ko fi loolu te wéral ko ba mbooleem naal yi nga xamante ni naan la ko yéen ko liggéeyal maam ju tedd ja sëñ Bamba saa borom ko kattan ak man-man dooleel ko defal ko tawféex ba nu mu ko bëggee mu defe ko nii noon it lañ koy ñaanalee Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Fall Menda saa borom gën ko fa yàggal moom it te liggéey ko sëñ Bamba yëpp mën koo jëfee ni mu ko bëggee di ko diggal ñu koy jëfee ni mu ko bëggee di ko ñaanal mbooleem murid yi mbooleem jullit yi ku leen yéene jàmm ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen siyaare fii nga xamante ni mooy janatul max waa fii nga xamante ni mooy Baye Fall ga waaye fii nga xamante ni mooy kër Cheikh Ibrahima Fall nga xamante ni fii nga ki nga xamante ni tey mooy Cheikh Ibrahima Fall di sëriñ di Fall reen mooy ñaareelu atam boo xamante ni gannaaw bi mu doonee Serigne Fall nekk na fi di fi toggee ndogu di koy yóbbul ki nga xamante ni mooy Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye nag wax ndogu wax li nga xamante ni mooy toggu ñam ku wax toggu ñam nag wax waañ moo tax tey fii lañ leen ko ubbilee fii nii si waañ bi nga xamante ni lépp loo xamante ni xew na fii nii ci biir liggéey bi dañ leen ko wan li xew si waañ bi dañ leen ko wan jël jëwriñ ñi waxtaan ak ñoom waaye li xew fii nga xamante ni mooy ci mbaar mi nga xamante fa teg ndog yi dem tamit leen la nga xamante ni moo fa xew ànd ak yéen ni indee ndog yi nga xam ni njabootu Cheikh Rafal gi fu ne la waay bawoo togg ay ndogu di ko indi fii sëñ Amdi mu koy dajale di ko yóbbul ki nga xamante ni mooy Serigne Touba noonu la ñuy ànd ak yéen bawoo fii nga xamante ni mooy Jannatul Mahwa wan leen convoi bi dem ba niñ koy jébalee ki nga xamante ni mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké waaye noonu tamit lañuy ànd ak yéen durant koor gi yëpp ba weer bi jeex ba li nga xamante ni mooy korité mbooleem loo xamante ni xew na ci ndog yi mbooleem foo xamante ni wax nañu njabootu Cheikh Ibra gi ma nga fa di togg ay ndogu ñu wan leen ñoom seen ndogu naka lañ koy waajalee ak nuñ koy jébalee jëlal li nga xamante ni mooy xew fii nii si jam jannatul maxwa dina leen jëlal li nga xamante ni mooy xew Touba fii nga xamante ni mooy paaleen dana leen jëlal ba kër borom digal waaye dana leen jëlal ba njaareem jëlal leen ba fii nga xamante ni mooy daaru xafoor liñ si jublu mooy fexe ba ñun ñii nga xamante ni suñu yitte ji yëpp weesu lu dul ndigal yi nga xamante ni Serigne Touba mi ngi koy jox Cheikh Ibra Fall ngeen koy dund comme niñ koy dundee loolu rek lañ si jublu moo tax incha allah ñun ak yéen ñoo ko fas yéene ànd weer bi yëpp ngeen ni gis li nga xamante moo moo xew fii di ko xam comme niñ koy xamee lépp loo xamante ni liggéey nañ ko fi ñu boole ñun ñëpp bu nuy am ngërëm ñun ñëpp ñu amandoo ko kon nañ àndandoo daal di tabi si biir wan leen li nga xam ne tey premier jour koor fii si jannatu lii moo fi xew kon nañ àndandoo daa di tabi si biir bismillah. laa ilaaha illallaah jërë ngeen jëf mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon rek danañ tàbb ci biir wan leen ci liggéey bi ngeen dund ko comme ni nga xamante ni noonu lañ koy dundee ñun ñi ngi taxaw ak ki nga xamante ni mooy bàjjan euh, soxna Aminata Fall di moom sëñ Amdi Fall Modou Menda moom nag bokk si jëwri ñi nga xamante ni ñoo jiite waañ bi nekk si kër Cheikh Ibra Fall bi ñu fas yéene waxtaan ak moom ci liggéey bu waañ bi yaay boo ñu ngi baax te di lay siyaar waaw ñaa ngi di ñaanal sëñ Amdi Fall sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loo téwér murit bu ne boo yeew war nga koo wax di ñaanal sëñ Amdi Fall mu yàgg fi loo téwér na ko togg téeméeri téeméeri koor yëpp ko sëñ Muntaxa di bàkk sëñ Tuubaa ak Cheikh yëpp ak jullit yëpp ndax waañ wi dañ ci wax Njaay nga xam ne mooy jëriñ bi ah tubaarkàlla ke Cheikh Ibra Fall ñëpp ngi teew kenn ku ne ñëw sa yéene te kenn ku di nekk ne tey boo sañoo yaa koy def ba ci sa morom ndaxte tey kenn ku ne boo sañoon sa loxo nga sa morom téye sa loxo mooy joxee li wati koor gi yëpp yal na yàlla yombal murit yëpp xéewal dafa leen barke ak barke sëriñ bi yàgg sunu kanam ngeen yàgg nu fee fekk di ñaanal rajo bi ak télé bi. nu yàgg yéen ñi ko jiite yore ko ngeen yàgg te yàlla defal xéew kawe seen jot te mu ànd ak liggéey bi ànd ak barke ak barke di bàkk sëñ Mat Fall mel na maam Cheikh Fall bàkk seen di mooy gis nañu waañ bi déguisement yëpp ngi fi ñoom ñëpp booloo doon benn képp buntu kër Cheikh Fall yëpp daje fii ku nekk am waañ noonu demee waaw loolu itam buntu yëpp loolu moom la sëñ Cheikh Ndiaye nga waxoon rek moo fi nekk na Cheikh Fall booy na njabootam yëpp benn dank moo am boolee waa na njaboot yëpp benn dank ndax légissement bu nekk a ngi fi te ñëpp bokk sëñ bi Cheikh Ibra Fall te jox ko seen bopp jébbal ko seenu njaboot seen lépp ñëw di ko ñaqal di di jëf seen doole ak seen alal ak bokki taaliba yépp waañ wi jàmm rek fi am ak salaam ñun ñu ngi ci jàmm ak salaam ñëpp ndax sama nday waajur yi nga xam ne maa nekk ñoom ci waañ wi mu njaboot Cheikh Modou Moustapha dañ la di seex si loo xam ne nan naa rëq bu ma wooyee digal ma ma daal def loola kon nag day ñaan sëñ bi yàgg suñu kanam yàgg ko def bàkke maam Cheikh Fall bàjjen euh, ma bëgg xam bi nga euh, fi xëy si woon euh, tàmbali liggéey ban waxtu. 5 heures du matin ba léegi ñu ngi fi ndax ñun waa Mbacke sax ma ñoom 4 heures et demi fee leen di fekk. njabootu Cheikh Fall yëpp su ma génnee 5 heures damay fekk ñëpp la ba san commencé xool ñii di def nañ di di nekk di saytu liggéey bu baax a baax jërë ngeen jëf. laa ilaaha illallah laa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 Cheikh Moustapha Sylla Cheikh Moustapha euh, la ñu ngi lay nuyu di la siyaar lan la mën a jàngatal tuuti ci liggéey bi nga xam ne Serigne Amdi Modou Mbenn yokku na liggéey bi jëlee ko fa ko magam yu baax yi baayam yu baax yi jëlee woon waaye yokk ko yokk boo xamante ni yéem na mboolem koy bàyyi Fall euh, li mu waxoon ne euh, du ma soppi waaye damay sof rek. sëñ Ablaye jërëjëf Ndaw ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di leen sant te di leen gërëm di leen jaajëfal. ci taxawaay bi réew mi ak bitim réew waaye di ñaanal nag Cheikh Mouhamadul Mountakha saa borom gën ko fa yàggal ci dolli ak wéram ak njabootu Cheikhul Khadim gépp ak mboolem taalibe yi di ko ñaanal jàmbaare Cheikh Ibra Fall ji Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda nga xam ne fii ñuy àddoo ci Touba Jannatul Mahwa ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne fi nii liggéey liggéey Cheikh Fall bi muy ndogu yi mi suñ biir xam naa ci kanam tuuti bu ko yàlla dogalee fas yéene naa génn dox ay jéego ñëw ba gis liggéey bi nga xam ne moom la ko Serigne Touba di liggéey mu di ko ànd a njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp fas yéene ko jébal borom Touba mu mel ni da laaj ni nan lañ gisee liggéey bi sëñ liggéey bi nañ ko gisee at ñi ba teg seen bët. ndax kenn ku nekk xam nga fokk sëriñ Cheikh Jëmb Fall bàyyi woon waaye sëñ Cheikh Jëmb it xam na fokk sëñ Modou Aminta Fall bàyyi woon sëñ Modou Aminta ku ne xam na ni fokk waajuram ba sëriñ Abdou Sakko Fall bàyyi woon ku ne xam nga ko. sëñ Abdou Sakkoor fa ko Sërif Assane Fall magam ju baax ja bàyyi woon ku ne xam nga ko Sërif Assane Fall fa ko sëñ Ablaye Fall Ndar magam ju baax ja bàyyi woon kenn ku ne xam nga ko sëñ Ablaye Fall Ndar sëñ Mor Talla sëñ Mor Talla Cheikh Moustapha Fall Cheikh Moustapha Fall Cheikh Ibra kon day mel ni Cheikh Moustapha Fall mu dellu si waat di sëñ am di Fall moom sëñ Modou Mbenda di doomi sëñ Modou Mbenda jiite tey buntu këri Cheikh Ibra Fall yëpp nga xam ne fii mu toog tey moo toog ci toog Cheikh Ibra Fall bi yor baat bi yor ndigal li fa séenu ko wéyal ànd ko mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall gi ku Cheikh jur sa baay tey jii nga taxaw sa buntu baay yaa ngi ànd Serigne Amdi Fall liggéey bi nga xam ni fii nga taxaw ba ba nga yegg jumaa ja boo jugee tuuti ci kanam bëgg a dem dem dina jafe lool te dara waralu ko nag lu may liggéey Cheikh Fall bu barkeel bii nga xam ne boo demee Serigne Mor Talla Fall moom sëñ Laay Ndar Cheikh Abdou Rokhaya moom sëñ Mor Talla Serigne Cheikh Ndigal moom Serigne Cheikh Fall Baye Góor sëñ Cheikh Fall Mbawar moom sëñ Aliou Fall Mbawar Serigne Falilou Fall moom Cheikh Abdou Sakkoor Fall Serigne Badara Fall moom sëñ Talla Yaasin moom sëñ Basirou Fall ànd ko mag ma ba sëriñ Abdou Rokhaya Fall nga dugg tey ba kër maam Saliou Fall daal ko for waaye jaaral nag kër Cheikh Sërif Assane Fall tey jii la alxames fi ne ku dem njaareem nag yaa ngi tàmbalee wàcc muy waajal guddi gi fas yéene jëm ñoom bët bu set wicc loolu nag moo fii ndax barki am na koy wax ay bool muy fukki bool ak ñaar ci baay bàyyam sëñ Assane yaakaar naa señ Bay loolu ñu ma dendal gis naa vidéo bii mu ànd ak yow taxaw ngeen di xooli liggéeyam sëñ Amdi Xadi Ba waaye xam fukk sëñ Assane bàyyi woon fukki bool ak ñaar bu la jeen doom wuutoo yóbbu ko ci juróomi téeméeri bool liggéey bi sa borom nangu na ko loolee nag moo am fii ndax sëñ mu Aminta eggoon na ci ceeb ak ndawal sëñ see jëmm ñëw ni ko ku yokku da ngaa wàññi lépp dina ko def ñamu Touba muy doon ay ginaar ak xar waaye bi sëñ Amdi Fall ñëwee nag ginaar ya fas yéene def ak ndawal muy nag yu ndaw ndax Cheikh Moussa nee na ndawal day ndawee la ilaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha nee na sëriñ bi nee na liggéey bi sedd na ab xolam dëgg-dëgg nee na ab te di ko liggéeyal bu baax muy sëñ Touba na sëñ di ko liggéeyloo Cheikh na ni ko defee xolam sedd na si kuy jërë ngeen jëf na gis na ko bu baax nee na gis na lépp jërëjëf Fall. asalaamaaleykum. Mouride sëñ bi nee na asalaamaaleykum. nee na mi ngi nuyu mbokki Mouride ndigalul Serigne Cheikh Ndiaye. ci ndigalul Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue. jëwriñu Serigne am di Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda moom maam Cheikh Ibrahima Fall. lii moom des ci mën te ñàkk a sànni kàddu rek. nee na lii de desee ci mën a ñàkk a wax ay kàddu. waaye li Serigne bi def rek. waaye li Serigne bi def. jug ak tànkam. jug ak tànkam. waaw ba ñëw ci liggéeyam bi. waaw ba ñëw ci liggéey bi. wax ne xolam sedd na guy. wax ne sama xol sedd na guy. wax ko ba muy ñetti yoon. wax ko ba muy ñetti yoon. ñun murit yëpp sunu xol sedd na yëpp sunu xol sedd na ñu nit ay guy yu. ndax liggéeyal ko. ndax liggéeyal ko. ba mu am ci mbégte rek. ba mu am ci mbégte. loolu rek lan doon sàkku. nee loolu rek lan doon sàkku. ndax su su amee rek. ndax bu amee. ñun li ñu bëggoon am nañu ko. ñun li ñu bëggoon am nañu ko. xanaa di ñaan murid yi nag. xanaa di ñaan ci murid yi nag. ñu ñaanal ko ñoom ñëpp. murid yëpp bokk ñaanal ko. moog Serigne bi Serigne Mouhamadou Mountakha. moog Serigne ba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. yàggal leen fi. saa borom doon leen fi yàggal. te wéral leen. te wéral leen. loolu la ñuy sàkk ci murid yi. loolu la Serigne Saliou di sàkku day ci murid yi. ginnaaw bu loolu wéyee nee ginnaaw loolu wéyee. dafa wax ni. Serigne wax ni. lam doon wax démb rek. lam doon la wax tey. nee loolu lay wax tey jii. kër Cheikh Ibrahima daal. kër Cheikh Ibrahima Fall daal. lañ ko xàmmee. liñ leen xàmmee. mooy ab yar. mooy ab yar. ay teggin. ay teggin. akub taalibe. akub taalibe. bu ngeen yëkkatee tee dab yi. nee bu ngeen yëkkatee tee dab yi. na mu ko doon waxee démb. na mu ko doon waxee démb. ànd leen akub yar. nan ba fu ñu yegg. ba fépp fu ñu yegg. ñoo xam ne ndawi Cheikh Ibrahima agsi nañu. ñoo xam ne ndawi Cheikh Ibrahima Fall yi agsi nañu. waxuñu ci yëngutu de. nee na waxuñu ci ak yëngutu de. ci dal rek. ci dal rek. ak yar. ak yar. ak teggin. ak ay teggin. jébbale lañ leen yónni. jébbale lañ leen yónni. na ngeen nañ leen ko jox loo. ñan leen ko jox loo. ngeen jox leen ko. ngeen jox leen ko. te bañ leen a rëtloo. te te bañ leen a rëtloo. ndax nit kat. ndax nit kat. dees na ko yónni fi barab. dees na ko yónni fi barab. mu àgg ci kañ ko yónni. mu àgg ci kañ ko yónni. tiitloo ko. tiitloo ko. loolu nag la koy waral. nee loolu nag la koy waral. mooy na mu fa yeggee. mooy na nga fa yeggee yow man yónni. loolu nag nee loolu nag. dalul kër gii ñu bokk. di kër Cheikh Ibrahima di kër Cheikh Ibrahima Fall. sëñ bi nee na ànd ko yar rek. sëñ bi nee na murid yi na leen ànd ko yar. ànd ki teggin ànd ki teggin. ànd ko taalibe ànd ko taalibe. loolu lépp nag. nee loolu lépp nag. laltaay ji laltaay ji. mooy ak taalibe mooy ak taalibe. jiitoo rek. bi jiitoo loolu lépp mën naa tege ci loolu lépp mën na ak taalibe mooy womat yooyu yëpp mooy womat yooyu yëpp ba mën a am ba mën a am kon gaañi kon gaañi nan leen ànd ak ko bu yar. ànd ak i teggin ànd ak i teggin. ànd ak ub taalibe ànd ak ub taalibe. ba eh, jébbale ñam yi ñu sëriñ bi joxe loo. nee ba jébbale ñam yi ñu sëriñ bi joxe loo. ñu jox ko ñu ñu ko jox loo. ñu jox ko ñu ñu ko jox loo. bu leen xëccoo yi. nee na bu gën xëccoo. bu ngeen fa mën a dajeel. nee na kon fa mën a dajeel. nee leen teg nee leen teg. bu leen jiitoo bu leen jiitoo yi. xam leen ni yéen a bokk lu ngeen. xam leen ni yéen a bokk lu ngeen di bëgg. yéen a bokk jenn jëf ji. yéen a bokk it jenn jëf. yéen a bokk it jenn kër gi. yéen a bokk it jenn kër. na leen yaatalante. na leen yaatalante. xajalante. te xajalante. bu leen xëccoo dara. bu kenn xëccoo dara nee na dañuy def ndànk noonu nii la ko sëriñ bi bëggee nee na ginnaaw bu loolu weesoo soxna yi nga xam ni soxna yi nga xam ni ñoo yore liggéey bi ñoom de ñoo yore liggéey bi di ko liggéeyal sëriñ bi di ko liggéeyal sëriñ bi donga yi day donga yi day mën na ñoo joxe ci seenu ñax mën na noo joxe ci seenu ñax waaye nag li koy melal waaye nag la koy melal mu taaru mu taaru ba mel ni sëriñ bi bëgg ba mel ni ko sëriñ bi bëggee ñoo koy def soxna yi ñoo koy def ndax taal tàng na lool. waaye monsieur Sula ñëw benn yoon. waaye monsieur Sula ñëw benn yoon ci sëriñ bi. ni ko cin sàngam day. ni ko cin sàngam day. nan ko waajalaat nan ko waajalaat. ndax dafa tàng. ndax dafa tàng. wala dafa xam. wala dafa xam. wala daa mel nu mu. wala ñu nekkoon démb rek. la nekkoon set. di laab di laab. di sellal dab yi di sellal ñam yi di sellal ñam yi. bu leen jëkkante. bu kenn jëkkante ni mur yi. jéem a jëkk a ñor leeg. nee na bu kenn jéem a jëkk a ñor leeg. a xew. a ki jëkk a ñor jëkk a ñor leeg. ki mujj a ñor leeg. ak ki mujj a ñor leeg. ñooy àndandoo. àndandoo. kon mënees na koy def ndànk kon mënees na koy def ndànk rek soxna yi. mu ànd ci tey mu ànd lépp ci ak tey. sëñ baa ngi sant nag. donga yi ndax nee na liggéey bii ngeen génne. ndax nee na liggéey bii ngeen génne. ngeen ko ko defalee. na ngeen ko ko defalee woon. da cee seetlu guy xoolal da cee seetlu guy. ba keroog mu wax ko. ba keroog moo ko waxal boppam. ngeen dellu si waat tey jii. ñu dellu si waat tey jii. mbooloo mu toll nii. mbooloo mu toll nii. dajewaat fii. dajewaat fii. mel nii ñu mel. mel nii ñu mel. jébbalaat sëriñ bi. jébbalaat sëriñ bi. li nga xam ni. li nga xam ni. mooy liggéeyam bi nga xam mooy liggéey bi nga xam ni. moom la jëmee ci kër sëriñam ba. moom la jëmee ci kër sëriñam ba. kon nee na mi ngi leen di sant. kon nee na mi ngi leen di sant. mi ngi leen di gërëm. mi ngi leen di gërëm. waa mbaar mi def lii itam. waa mbaar mi nga xam ni. ñoo def lii. di alali Cheikh Ibrahima Fall. di alali Cheikh Ibrahima Fall. dañu koy jébbale. keroog ba ñu koy jébbale nii. damaa xëy ñëw. nee na moom mii dafa xëy ñëw fii. waaye dañ ma ni ci ngoon gi la. waaye dañ ko ni ci ngoon gi lay doon. fekk bu sëriñ Moussa Mbar. mu fekk bu sëriñ Moussa Mbar fan yi mu ne ko kon de maa ngi dellu kër ga. mu ne ko kon de Fall maa ngi dellu kër ga. ba ngoon rek ba ngoon rek. mu ne man man gannaaw maa ngi fi de. mu ne ko Fall gannaaw maa ngi fi man Moustapha. nekkal naa leen fi yéen nekkal naa leen fi yéen suñu waajur yëpp. ñoom itam sëriñ baa ngi leen di sant. waa mbaar bi Omar Seck général sëñ baa ngi leen di sant nooy itam neen ñoom dong itam nga xam ne nooy seen morom yi dong nga xam ne ñooy seen morom yi dong sant nañ leen sant nañ leen sëñ naa Omar Seck am na nañu bég lool nee na am nañu bég lool ci seen jëf ji ngeen ci seen jëf ji ngeen jëf ba mel nii mu mel ba mel nii mu mel yaatu yaatu féex féex tàngul tàngul ñu ngi leen ciy sant nee na ñëpp ngi leen ciy sant di leen gërëm di leen gërëm di leen ñaanal di leen ñaanal alal ji nga xam ne nee ngeen mooy alal di Cheikh Ibrahima alal ji ngeen yoro te def ko mooy alal di Cheikh Ibrahima Fall naa ne alal di Cheikh Ibrahima sax wóor na ko nag alal di Cheikh Ibrahima sax dara mënu ko yàq dara mënu ko yàq waaye saytaane waaye saytaane daa bari doole dafa bari doole de lu jekk lu jekk lu rafet lu rafet lu baax lu baax te jëm ci yàlla te jëm ci yàlla loolu rek ko tax a jug loolu rek ko tax a jug waaye ñu ngi leen di ñaanal waaye ñu ngi leen di ñaanal loolu lépp moom loolu lépp moom yàlla na ngeen ci mucc yàlla na ngeen ci mucc alali seet ba faat bi te nu mucc ci te nu mucc ci ñun ñii kon jërë ngeen jëf kon nee na jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha